mën naa am boo ci dee tukki xeet yi dansé yi doo ci mucc fala xajaba déet kiimtaan isan kon bada baadama ci gannaaw li nga xam ne raaytu gis naa ko fil baaxirati ci bato min xasanaatin ci ay baax baax wa qillati axtaarin ak néewuk ay dansé an ufaddila ma gënal asafara tukki fiihaa ci bato xalal xitaari ci tukki ci saxaar ga al ahwa ji kay aji dofe al mutaxajri fi kay aji ñàkk xalaat al mutaxajrif day firi aji rëylu bu ne taxajrafa xalal xawmi mooy rakibahum wa ataahum bi ma yakrahoon war na ci seen kaw dikk leen loo xam ne neexu leen bu ñu nee nag taxaj rafa al amra mooy aqdama alayhi duna an yatarawaa fii su jekkee jekki songu mbir te àndu ci ak benn seetantal daañu ci jëfandikoo taxaj rafa dañuy wax ne itam al ajrafatu jafwatun fil kalaami wa xurqun fil amal koo xam ne buy wax wax ja day ñàkki teggiin buy jëf jëf ja day cuune boole daal ñàkk teggiin ci wax ak cuune ci jëf daañu ko tudde alxaj rafatu waaye nag bu la neexee firee almutaxajrif aj rëylu rek mbaa almutaxajrif aji xabtalu ju amul seetantal da doon comparé yaar yi bato ak saxaar anakan moo ci gën ci boo dee tukki mu ne nag gannaaw bi nga xamee ne kenn ku ne ber naa ko wax ay baax baaxam wax yama ca sikk kon amul benn werante amul benn kiimtaan su ma nee la tukki ci bato moo ma gënal tukki ci saxaar ndax saxaar ndax saxaar moom day mel ne dof boobu nga xam ne day xalangu rekk xamut la muy def du am setantal te bato dane woon moom day ànd ak tekk ak tey bu doon jëmm nga ne ku rafet xalaat la nga seetlu la waxoon feene wa annaha kathiratu taxarudi lil xatar delluwaat fii ne wa qillati axtaar daa waxoon feene dafa bari moom bato lu muy soflu xeetu danse walbatiku ne gannaaw li nga dégg ma wax ko ci ay baax baaxam ak néewug ay danseem kon su ma nee la tukki ci bato moo ma gënal tukki ci saxaar du la war a jaaxal man naam nag waqillati axtaar mu jublu ci ci kaw rek boo dee comparé bato mooy gën a néew ay danse ne teewul nag boo dee seet ci dëgg-dëgg nag bari na ay danse yu muy soflo waaye nag ci boo ko toll léegi saxaar moom mu mel ne dafa néew ay danse mu ñëw nag ci albaaxiratu bato beral ko waxi boppam anwaawul bawaaxiri façon yi bato yi albawaaxiru bato yi nawaxaani ñaari façon lañu xarbiyatun yenn yey ko jug xare muy guerre wa tijaariyatun ak yey ko jug commerce bato yi mën nga ne ñaari façon lañu am na ci bato yoo xam ne dañ cay xeex am ci bato yoo xam ne dañ leen jëfandikoo ci wàllu commerce yóbbu marchandise di ko jaay ak jënd ko di ko indi ak yu demee noonu al bawaaxiru bato ya al xarbiyatu yee ko jug xare moom lañ bëgg a njëkk wax tustaamalu def na jëfandikoo al bawaaxiru bato ya al xarbiyatu yee ko jug xare fil xoroo bi ca xare ya tata nawaaw dana xeetaloo nga dana bari ak xeetaloo tasmiyatuha seenuk tudde bi xasabi muhimmatiha ci kem seen mission kallati ya nga xam ne tax furu danañu garde as sawaaxi la tefas ya tusamma def na leen tuddee xitaa xafri sawaaxili gaali garde tefas ya wallati ya nga xam ne totaaridu danañu dàq alqitaha gaal ya alxarbiyata ya ko jug xare tusamma def na leen tuddee ak torwaadaati ay dàqkat wallati gaal ya nga xam ne maanaam bato ya nga xam ne tuddam miru danañu alag al muduna dëkk yu mag ya wal xilaaxa ak tata ya maanaam sënge ya kaaraange ya asaaxiliyata yi ko jug tefas tusamma def na leen tudde al mudammiraati way alage wallati ya nga xam ne taltaqitu danañu for al alxaama miin ya ay miin ay ndell tusamma def na leen tudde laaqi tatal alxaami aji for miin ya majmuuhu haadihi lqitaci mbooloom yi lay gaal alxarbiyat yi ko ju xare yu sama def na ko tudde al ustoola flotte ba flotte alxarbiya bay ko jug xare bato yi nga xam ne bato yi guerre lañu bato bi ci ne dañuy seet la tax ñu liggéey ko ñu wutal ko turu yelloog loola bu dee ñu defar ngir di ko garder tefas yi ñu leen tudde gaali garde ay tefas yee ñu defar ngir di ko dàqe gaali geer ya ca des ñu leen tudde ak torradaat ay dàqkat koy wax croiseur yee ñu defar ngir man cee màbb ay dëkk yu mag a mag ak ay sënge yu nekk ca tefas ga dañ leen tudde al mudammiraat way alage te mooy destroyer gaale ñu defar ngir di ko dindee miin yi ay miin ay ndell la yoo xam ne dañ koy suul te bari na lu muy gaañ ci ay nit dañ koy dégg sax ci Casamance boobule gaal yooyu for miin yooyu di ko dindi ñoom la ñu tuddee forkatu ay miin xeeti gaal yi demee nii nag nga xam dañ ciy xare nag boo leen boolee am na aw tur mooy folootu xare daa am al ustoolu al bahriyu maanaam foloot boo xam ne day nekk ci géej te mooy xeeti gaal yu mel nii am nag al ustoolu al jawwiyu muy avion yi nga xam ne ñooy naaw buñ leen boolee sàkkal leen fu ñu daje ak nañu wute ay façon mooy tudd al ustoolu al jawwiyu foloot bu aérien maanaam bu aju ci jaww ji albawaaxiru bato ya at tijaariyatu yay ko jug commerce albawaaxiru bato ya at tijaariyatu yay ko jug commerce nawxaani ñaari façon lañ nawxun ab façon yanqulu boobu day yóbbu ar rukkaaba ay client wa yusamma te def na ko tuddee bawaaxir ar rukkaabi batooy client yi wa nawxun akub façon yanqulu boobu day sëf a day yóbbu al badaa'i ay marchandise wa yusamma def na ko tuddee bawaaxira shahni batoy sëf wala batoy sarse tata allafu dana composé woo baaxiratu rukkaa bi batoob client ya min aqsaamin ci ay xaaj xadiidati ñuy aji bari qismun ab xaaj aradiyun bi ko suuf maanaam bu féete ci suuf gi waxoote moom muqassas lu ñu jagleel la lil muharrikaati ñeel moteur ya ab daxmat yi aj rëy wa qismun akub xaaj yaaloohu boobu dana ko féete kaw muqassasun bu di buñ jagleel lil baxaarati ñeel navigateur yi maanaam dawalkati gaal yi am tabaxaat ndaal classe ya wala étage ya al xaaliyatu yi aji kawe al baaqiyatu yi aji des fa muxassasatu luñ jagleel lañu lir rukkaa bi ñeel client yi wax ya ñoom xalaa salaasati aqsaamin nekk nañ ci ñetti xaaj falqismu xaaj ba ëllësi ba nga xam ne yasamu dana xajoo sururan ay lal xadidatan yuy aj bari xadidatan fii xurafin ci biir ay sambar ay néeg kabirat ni aj rëy yu sama def na ko tudde ak darajata classe ba ak taalisata bay aj ñetteel wal xismu xaaj ba ëllësi ba nga xam ne yasamu dana xajoo sururan ay lal qalilatan yu di aji néew fii xurafin ci ay sàmbar saxiirat yu di aji tuuti yu samma def na ko tudde ak darajate classe ba ak taaniyata bay aji ñaareel wal xismu xaaj ba ëllësi ba nga xam ne yata àllafu dana composé woo min xurafin ci ay sàmbar muy ay néeg saxiirat yu di aji tuuti fii kullin yooyu nekk na ci benn bu ne min xaa ci ñoom sarirun ab lal waaxidun bu di benn yu samma def na ko tudde ak darajate kalaas ba al ula ba jëkk wa hunaaka nekk na foofee tabaqatun ab étage wala ab kalaas xaasatun bi spécial yu saafiru bob dana tukki alayha ci kawam ak rukkaabu client yi sayfan ci jamono été mooy jamonoy tàngaay hiya moom nag zahru safinati mooy kaw gaal ga bato yi nga xam ne dañ ci yaxantu ñaari façon lañu am na façon boo xam ne ay client la yóbboo ko delloosi am bato yoo xam ne ay marchandise lay sëf dem ak a dikk façon bi nga xam ne ay client la yóbboo ko dem ak a dikk dañ koy tuddee batooy client yi façon bi nga xam ne moom ay marchandise lay yóbbu dem ak a dikk ñu koy tuddee batooy sëf wala batooy sarse xeeti marchandise bato bi nga xam ne da yóbbu ay client mën nga koo def ñetti classe yu bokkut am na ci classe boo xam ne moo féete suuf moom xeeti motoor yi gaal gi dañuy motoor yu rëy rëy moom lañ cay def classe ba ko féete kaw nag moom dañ koy jagleel dawalkati gaal gi boo weesoo xaaj bi féete suuf dañ féetale ko moteur yi ak xaaj ba ci sës féete ko kaw dañ féetale ko dawalkati gaal gi man nga ne la ca des féete ca kaw moom bu la neexee tudde ko ay étage bu la neexee tudde ko ay classe yooya nag ca la client yi dugg ñoom itam dañ koy xaaj ñetti xaaj am na ca xaaj boo xam ne néeg ya day rëy tey di def ay lal yu bare bare moom dañ koy tuddee classe su ñetteel mooy troisième classe am nag xaaj boo xam ne moom néeg ya du rëy lal ya it du bare noona waaye nag faaw ay lal mooy nekk ci benn ne bu ne loolu la ñu tuddee deuxième classe première classe nag moom moo gën a neex ndax day nekk ay néeg yu ndaw te benn bu ci ne benn lal moo cay nekk nga xam ne boo jëlee ci yooyu yow rek yaay nekk ci sab néeg am na nag beneen classe boo xam ne moom bu dee jamonoy tàngaay nga xam ne nekk ci bitti day neex la ñu door a am classe boobu te mooy kaw gaal gi kaw gaal gi bu dee jamonoy tàngaay dana am ñu ca mën a féete nekk ca dañ koy taamu sax waaye bu dee jamonoy sedd nag moom nga xam ne taw beeg nees bi wàcc ak yooyu moom deesu ca mën a nekk ila janibi tabaqaati jëm na ci wàllu étage yooyule wala classe yooyule mustawdahun ab dépôt kabirun bi ajrëy yaxwi boobu dana ëmb xawaa ijar rukkaa bi soxlay client yi yu samma def na ko tudde xam baran xam bar ñu koy wax kaal kaal wala nga tudde ko dépôt yata fan nanu dana jongante asxaabul bawaaxiri waroom bato yi fi binaa'i xorofil musaafirina ci tabax néegi tukkikat yi yàbb noona danañu tabax bay naxaa seen diggante assalaalima ay yéegukaay maanaam ay escalier alxaridata yi aji yaatu yu zay yi noona danañu rafetal judraanaxaa seeni miir bil bil lawri ci cristal yafrushoona danañu lal darajaatihaa seeni kalaas bi zarabi yi ci ay tappi yu xassisoona danañu jagleel xorofan ay néeg li tasliyet yi ñeel miisal xol wa cinéma ak cinéma yar isu dana jiite albaaxirata bato ba rubbaanun ab capitaine yu saaxiduhoo kook dana ko dimbale mu aawi noonu ay adsuye wa baxaaraatun akub équipage wala ay navigateur lu bokkut ak classe yi nga weesu am na ab dencukaay boo xam ne ci la client yi denc seeni mbir ñu koy tudde xambar kaal wala nga ne dépôt waroom bato yi daañu faral di jongante ci defar néegi tukkikat yi ndax ñu bari di taamu seeni gaal diggante classier ak classier dañ cay def ay escalier yoo xam ne ci la ñuy yéege muy escalier yu yaatoo yaatu miir yi dañ koy rafetale xeetu cristal classe bu ci ne boo ci demee suuf néeg ya dañ koy lal ay tappi yu rafet di wut nag ay néeg yoo xam ne dañ koy defar rek ngir cinéma ak xëy na théâtre ak télé ak lépp luy miisal xol maanaam luy bànneexal xol bato boo gis nag dana faral di am capitaine boo xam ne mooy jiite bato bi dana am ay adsuye yoo xam ne ñoo koy jàppale ak yeneen dawalkati gaal ak ñuy liggéey ci gaal ga ñu leen di wooye ay navigateur wala équipage ashor uhibbu dana sopp asafara tukki fil baxri ci géej sayfan ci jamonoy été axaafuhu danaa ko ragal chitaan ci jamonoy sedd mu ne bu dee jamonoy tàngaay moom tukki yi géej gi day neex ndax dangay am féex bu baax a baax waaye bu dee jamonoy sedd nag moom damay ragal lool tukki géej maanaam ci gaal ndax xam nga taw bu bari beeg bu dee ci ñoom nees bi wàcceeg dënn yéeg yéppay tax asbahat xëy na wala mujj na axtaarul baxri dansey géej gi qalilatan di aji néew fii haadihi l ayaami ci lay fan mu ne waaye nag fan yi nu toll moom géej gi xeeti danse yi ci amoon xeeti wóora bi wàññiku na bëreetul daal ata attaru danaa jeex xol la daa mushahadati qaribin fa jàkkaarloog am mbokk musaafirin muy aji tukki fil bahri ci géej ga afaw danaa bég kasiran lool mbaa lu bari bi xaa yi ci ak taseem ne su ma séenee sama mbokk muy tukkite nara aw ci gaali géej yi sama xol day jeex ndax yërëm ko ak rek ragal dara dal ko te saa ñëwaatee ba ma gis ko taseeg moom damay bëgg lool nga jàll si ci at taw sion li ci jiitu mooy tamhidun al bushra xibaaru mbégte allati ba nga xam ne te sufuha da nga ko togg da nga ko jiital ilaa xam ni ko jëm ci sa baay bu ndaw tawsiwu bi day njëkk wax xibaaru mbégte boo xam ne moo ngay àggale sa baay bu ndaw xammiya yow sama baay bu ndaw alxamsi yi sa bi aji foor yaa nga xaa cey moom min bushra ci xibaaru mbégte saidat bi aji neex taalama tamannaytu bopp yàggaana ma mébét sama xaa ak déggam te bushra wusooli ax yi mooy xibaaru mbégte ak sik sama mbokk mi saidin te mooy said min amerika bàyyi ko amérique ba ada hijratihi ci gannaaw gàddaayam nga ak tawilati gay aji yàgg day waxanteeg bàyyi mu daw naa ko lii day xibaaru mbégte bu neex a neex la boo xam ne yàgg naa ko mébét ba tey yàlla sottal ko te mooy dégg naa ne sama mbokk mu saayit ma ngay bàyyi ko Amérique ci gannaaw tukkeem bu yàgg boobu bàyyi ko na foofu ba muy asi fii ci suñu réew mi su ko defee nag awalan xabaru wusulihi al ittijaahu ilal marfa asoodu ilal baaxira li ci topp mooy ba mu yëgee xibaarub ak seem ak daal jëm ca toor ba ndax teeru ko ak ba ak bañ àggee daal di yéeg ca bato ba fekk ko ci biir bato ba laata mu wàcc fama in wasalat naa jotunu muy agsiwul ci nun am ba u mugaadaratihi xibaar yi bàyyikoom nga amerika amérique xataa tamal lakkanaa ba moom nu sóorul mbégte laa yu daahihi moom buuronteeg moom sóorul menn mbégte wa bit naa te mu fanaan nar taqibu di séentu al yawma bés ba al muhaddada ba di buñ limité li wusooli baaxirati ñeel ak si bato bi wa fi sabaahi zalika al yawmi ci subag boobee bis waradat naa dikkal nanu barqiyatun ab télégramme min ax yi bàyyi ko ci sama mbokk mi yoo li mu naa doon yëgal fiiha ci biir télégramme bi ni annahu naka moom yasilu dana aksi ilaa marfa i Beirut jëm ci pooru Beirut ba àdda zuhuri ci gannaaw midi fa asra amaate nu gaaw ilal marfa i jëm ca poor ba nan tasiru noo ngi doon néggandiku wusoolal baaxirati ak sig bato ba allati ba nga xam ne maakaadat xawutoon tadxulu di dugg xaw dal marfa i basin poor bi wa taqtaribu te muy jege min rasifi ca keeba xataa saxidnaa ba nu yéeg ileexa jëm ca bato ba watta jeex naa te nu jublu taw woon ci ak jawal naxwa saxidin ci wàllu saxit allësi ma nga xam ne kaana nekkoon na yu law wexu di sëli mooy di junju danaa ñeellu ba min diilihi ca musuwaaram ba wala sarbetam ba al abyad day aji weex fa yàlla cay moom min saaxatin ci aw waxtu azimatin way aji rëy xëppalat boo xam dotti na fiiha ca moom adduma xuron wanja mutaatiratan mbir muy aji jeexitlu min aswaatil xubali ci kàddu yi fóoniira daa wax ne ba nu yëgee ne saxiit bàyyi koon Amérique danoo daal di am mbégte moo xam ne mën mbégte melu ni lu tàmbali di fanaanee séentu bis boobu nga xam ne ci lañu wax ne ci la bato bi war a agsi te sax it ca bato ba lay dugg bis boobu nga xam ne nag ci la bato bi war a agsi ci pooru Beirut jot nañu benn télégramme bu bàyyi ko ci saa it mu nu yëgal ne bato bi gannaaw midi tey jii lay teer ci pooru Beirut. daal di gaaw rek dem ca poor ba di yëggandiku bato bi agsi naka bato bi agsi ba agsi ci bassin poor bi di jege nag fi nga xam ne mooy quai bi quai bi li muru trottoir fi nit ñi nekk naka nu gis bato bi mu agsi rek ba foofu rek nu daal di gaaw yéeg ci bato bi fekk na saa it ma nga doon tàll ab musuwaar bu weex di li ci sëli di wala ni maa ngi fii ni daal di gaaw rek wuti ko fa mu nekk mu ne waaye waxtu woowu daal na mu neexe ak ni nga xam ne moom la ca sëli rongoñ tuuroo ndax mbégte xol yi jeex ndax fóonante yi doon fóonanteeg namante bi daal ma ni su ko misaal taaniyan nag ahadiisu axika waxtaani sa mbokk moo ci bëgg a topp wa min ma bokk na ci li nga xam ne yëpp liju dana seral ba mel ni galaas alfuaada xol ba yaa xam nii yow sama baay ba ndaw bi ànd ax yi naka sama mbokk mi
salxaana mastaf sara gaawaana ba mu laajee xan ka walis la waxan sixatika ak walis sa wér yaram wa sixatil ahli ak wér yaramu waa kër gi alkiraami ñi di way tedd wata allama te mu metti lu jiddal lool li xadami mushahadatika ngir ñàkk a jàkkaarloonte yow maxanaa ànd ak nun laakin naxu waaye moom xindama alima ba mu yëgee sababat tiraarika sababus sak loru mooy sak obligé alqaahiri gay aji not leel baqaay jëm ci des baidan ci fu sori fi haadihi saaxati ci wile waxtu alxazimati wi aji màgg xasaraka nangu na sa ngant xasaraka gàntal na la nangu na sa ngant wata mën naa te mu mébét la kañeel la ku la xëyri yépp yow moom mi bind nii bàyyam mu ndaw la doon waqanteel mu ne ko nag sama baay bokk na ci li gën a sedd sama xol sama mbokk mi sax it ba mu agsee fi saasay saasa te la daal di laaj laaj na nga def ci sawér yaram ak sawaa kër ñu baax ñi lu ñu def mu amati lool nag ci ñàkk mi la ñàkk a gis nga ànd ak nun mu gis la waaye nag ba mu xamee ne lor ju wër wër ngant lu wër moo ko waral mën laa ñàkk nekk foofee nga nekk ndax ngant lu wër wër daa daal di nangu sa ngant ñaanal la méwétal la wépp yow an nihaayatu yamukaay bataaxal bi nag mooy daawatu xàmmika ilal xudóori bi surxatin li ci mujj mooy wax sa baay bu ndaw bi woo ko ci mu daldi gaaw ñëw ndax gisanteeg sa mbokk mi saanit xafoon maa ngi jéggulu ak jéggulu ñu koy wax xafoon pardon yaa xam ma yow sama baay bu ndaw in xaddastuka ndéem nekk li naa la xan afkaar yi wëri sama xalaat yi asibiya niyet yi ko jóg gone walakin nal la fii waaye li nga xam ne arjoox dinaa ko yaakaar min ko ci yow xoo moom antu xajji la moo di nga gaawe alxudoora teew ga kaytu shaari kanaa ngir nga bokkaaleeg nun fii afraaxi naa ci suñu mbégte laa siyama rawante naag nag wanaxnu te nun naatabiru ko dana nu la considéré daanu la jàppe aban ngay bàyyi taaniyan bu ñaareel wa xam man tey bàyyi tax kariman bi aji tedd wa dumta yàlla na nga sax liggéey axika ñeel sa doomi mbokk mi ëllës yi mi nga xam ne yuhibbuka dina la sopp wa yaxtarimu ko te mu lay ormaal wa yaxtarimu ko min amaaqi xalbihi tukkee ji xóot xóoti xolam wasalaam dana ko sama bàyyi maa ngi lay jéggulu ndax lii ma la wax nii waxi gone la daa mel ne waaye daal li ma bëggoon te di ko yaakaar mooy nga gaaw a ñëw bokk nun mbégte mi ci ñibbisi gi sax it ñibbisi rawante na nag nga xam ne nun dañ laa jàppee gannaaw suñu baay yaay suñu baay kon nag nga gaaw a ñëw daal taamu nañ ko yàlla na la fi yàlla bàyyi nag nga nekkal ma fi man sa doon mbokk mi nga xam ne dama laa sopp di la ormaal cofeel goo xam ne ak orma joo xam ne ci xóot xóoti xol bi laa ko tibbee wasalaam
al ahlu ñoñ ña wal asdiqaaw ak xarit ya alwaalidaani ñaari waajur li kulli insaanin ñeel na képp nit waalidaani ñaari waajur xuma ñoom ñaar al abu mooy baay wal umu ak yaay yetta hadaanihi danañu ko nemmiku bi tarbiyati ci ak yar wal xitaayi ak lekk dañ ko wax xisaaw añ rek waaye mooy lekk la ñuy lekk daal mooy alxisa al abu baay ba yaqumu dana taxaw bi nafaqaatil bayti ci dépense yi kër ga min malbasin ci ak tol wa makalin ak lekk wa mashrabin ak naan al ummu ndey ja it taatani dana sonne bil abnaa ci doom ya wa tatahaduhum te ma leen di nemmiku wa tatahaduhum bi tarbiyat ci yar taxiitu dana ñaw koy masta te ni mool bi def bañ laa juumloo tiyaaba hum seen yéere tasharu dana fog mooy dana ñàkk nelaw min ajli raxatihim ngir seen nooflaay taxtani dana sonne binaw mi him ci seen nelaw wa nazafatihim ak seenug set tu fakkiru dana xalaatit fi mustaqbalihim ci seen avenir wala nga ne seen ëllëg nit ku ne am na ñaari waajur muy ndeyam ak baayam ñoom ñaar ñoo koy toppatoo ci di ko yar di ko dundal moom baay bi mooy toppatoo daal lépp lu ñuy sol mbaa ñu koy lekk mbaa ñu koy naan yaay ji mooy féete ci kër gi